wàllum këyit mi ngi basé wu Dakar ak Saloum képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak moom da ngay woote si numéro bii di 77 259 22 92 ma bamtuwaat ko 77 259 22 92 jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. ñu door xibaar yi dooree ko ci match amical bi nga xam ne équipe nationale loko bi daf ko doon amal tey jii ngir waajal Coupe d'Afrique bi nga xam ne moom la ñuy wax CHAN mu war a am ci atum 2023 war a door le 13 janvier jeex le 4 février match amicale boobee nag Algérie mii daloo yëf yi moom la Sénégal doon jàkkaar lool ba 2-2 la jeexee bitu Sénégal yi Moussa Kanté moo njëkk a dugal Malick mbay feelu ko kon waaj gi Sénégal di waajal CHAN bi mu soxal équipe nationale loko bi nga xam ne Pape Bouna cew moo leen di tàggat tey jii match nul la am ak réew mi nga xam ne moo koy daloo di Algérie ñu jugee ci équipe nationale loko bi dem ca waa AS Monaco ñoom nag tey jii dañ doon amal match amical ak Empoli match boobee nag Monaco moo ca am ndam dóor ko benn bal ci dara waaye ki dugal bit bi nag rakk la ci Sofiane Diop mi ngi tudd Edan Diop 18 ans képp la am waaye bit bi am ca match boobee moo ko dugal match bii nag mooy matcham bu njëkk mu départ titulaire ca club boobee di Monaco waaye moo may ndam club boobee muy Edan Diop nekk gone gu football am lool yaakaar ci moom ma ngay def ay jaloore ca AS Monaco waaye match bii nag mooy matcham bu njëkk muy départ titulaire ca club boobee di AS Monaco waaye Monaco googee duñu ko génn gum doomu Sénégal bii di Ismail Jakobs so xam ngeen ne foofu la nekk ginnaaw bi mu demee ca coupe du monde ba ànd ak réewu Sénégal ñibbisi delluwaat door entraînement yi tey jii bi clubam di Monaco di football ak Empoli football na ca match boobee muy Ismail Jakobs ñu jugee ci waa Monaco ak Ismail Jakobs waaye doomu Sénégal yi duñ leen bàyyeegum kii tamit demoon na ca coupe du monde ba ànd ak réewu senegal muy Pape Matar Sarr moom nag delluwaat na ca Tottenham ba dooraat na entraînement yi kon ñaanal leen ko mu am temps de jeu ca club boobee nga xam ne Antonio Conte moo leen di tàggat ndax footballub Sénégal am na lool yaakaar ci moom ñu juge ci Pape Matar Sarr jël doomu Guinée bii di Moctar Diakhaby moom nag ma ngay football ca Valence gone gi nag contrat bi ko lëkkale ak club boobee saison bi ñu nekk bu jeexee day jeex tàkk waa Valence nag tegal nañu ko contrat bu bees tàq waaye gone gi yéyegu ca yàbbeegu ca bu ñu sukkandikoo ci foot 224 waa Inter dañu ko bëgg Inter li ñu bëgg moo di su fekkee jubawuñu ak Skriniar ñu dem jëli ko foofee mu doxal ndax Skriniar kat contrat am saison bii ñu nekk moom it su jeexee day jeex ca Inter te Inter li mu bëgg moo di su fekkee jubawuñu ak moom ñu jëli Moctar Diakhaby mu wuutu ko foofee xibaar boobu foot 224 moo ko xamle. ñu jugee ci Moctar Diakhaby jël doomu Cameroun Cameroun bi di Vincent Aboubakar moom nag bu ñu sukkandikoo ci foot merkato club yu mag nekk ca Europe ñoo ngi koy bàyyi xel moom nag jamono jii ma ngay football ca Arabie Saoudite club bu ñuy wax Al Nasr waaye ma ngi fay doxal te réewam di Cameroun nit ma ngi fay doxal ndax ci coupe du mondo bi dem na fa te doxal na loole tax na club yu mag nekk ci Europe ñoo ngi koy bàyyi xel bokk na ci Fenerbahçe nekk ca Turquie ñoo ngi koy bàyyi xel Rayo Vallecano nekk ci Espagne ñoo ngi koy bàyyi xel club yooyu bëgg ko nag kenn ku ne ci ñoom li nga bëgg moo di jëlee ko ci Arabie Saoudite indi ko ci sëb club mu doxal muy Vincent Aboubakar xibaar boobu foot mercato moo ko xamle ñu jugee ci Vincent Aboubakar dem ca équipe nationale bu Maroc ñoom nag ki leen di tàggat di Walid Regragui gi tey jii bi ñu jàkkaarloo ak Croatie ba noppi ñàkk ca match boobee li mu xamal jour yi moo di coupe du monde bi nag jeex na waaye ñun jamono ji nañu ko fàtte jëmbat fulla ci coupe d'Afrique deux mille vingt quatre bi li ñu bëgg moo di ñoom waa Maroc coupe d'Afrique boobee ñu jël ko te walit reg-reg yi nee na leen munoo nekk buur ci àdduna te fi nga dëkk nekkoo fa buur nañu fexe Afrique ga ñu dëkk ñu doon fa champion nekk buur Afrique su loolu amul rek mënuñoo nekk buuru àdduna walit reg-reg yëkk yëkkati kàddu yooyu nee na leen coupe d'Afrique 2024 li mu bëgg moo di ñu jël ko kon équipe nationale bu Maroc wax na bëgg bëggëm ci coupe d'Afrique 2024 bi ñu dëgmal ñu jugee ci équipe nationale bu Maroc jël doomu Allemagne bii di Youssoufa Mokoko di football ca Borussia Dortmund moom nag contrat bi ko lëkkale ak club boobee saison bi ñu nekk bu jeexee day jeex tàkk esport nee na nag gone gi mi ngi def lu mu mën ngir football ca Barcelone waaye waa Barcelone liñ ko xamal moo di fii de sa kër la waaye nag su fekkee bëgg nga fi football